njàngale mi demul ci nga dikkul mbay laara ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur de la santé wàllu wér-gi-yaram gi jamono ci demul ci nga dikkul mbay laara te ñoom di ñoo ngi waaj ay gréew bu passé loo lekk location bi nga xam ne cher na ba jéggi dayoo moo tax journal bi di enquête xëy tënk ne Macky Sall ma ngi ci boo xam ne mara détaillé yéen i kaay gi di Sud Quotidien jëm ci njàng meeg njàngale nga xam ne maanaam dafa su la jee bu dee déggoo amul diggante état bi jàngalekat yi nañu leer ne ren ji nag maanaam at mi yàqu na yéen a kaay gi di vox populi nee na état ak jàngalekat tey ji daal mooy dajee ba mujj bi nag maanaam charge mujj bi yéen a kaay gi di le quotidien nee na état bu ngir na génn si crise bii nga xam ne moo am ci lu jëm ci njàng meeg njàngale mi état bi nag la nga xam ne moom la proposé woon jàngalekat yi teg na ci lu toll ci fukk ci ay milliards maanaam dix milliards yéen kaay gi di Les Échos xëy dañu xibaar naan ñu may mun a mi nga xam ne mooy maire bu Patte d'Oie niki démb doon na def passation de service ak ki nga xam ne mooy Banda Diop waaye nag Banda Diop bi ko joxee li nga xam ne mooy document yi Maimouna Dièye dafa signé nag sous ndax nag document yi nga xam ne moom la ko Banda Diop jox daal document yëpp leerul ci boppam yéen a kaay gi di 24 heures xëy duñu xibaar naa ñu Ahmed Aïdara ni ki démb la doon def passation de service waaye nag Aliou Sall ñëw la yéen a kaay gi di fa toppale nee na maître Abdoulaye Wade wax na lu leer ñi nga xam ne ñooy conseil ki nga xam ne mooy Ahmed Aïdara yéen nga xam ne moo dal Ahmed Aïdara moo

fa nekk dañu leen a installé lan moo tax nag Kaolack daa di nekk exception loolee moo jaaxal gars yi journal bi nee lu mel ni amoon na Podor ci atum 2014 teewul nag maire ba dañu ko installé woon moo tax ni ki démb nag coalition ànd nawle ci diwaanu amal ab marche pacifique yéen a kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu sa Jurbel am na jàngalekat boo xam ne dafa violé benn élève l'observateur nee na ca Tamba foofee moom ab élève moo fa violé benn xale bu jigéen bu am ñetti at yéen a kaay gi di libération wax ci Mamadou Sall ak Boubacar Biaye journal bi nee na juge deuxième cabinet bi lankal na leen liberté provisoire ba nag yóbbu leen tribunal correctionnel maanaam dañu leen di atte yéen a kaay gi di Sud Quotidien Mali jamono ji maanaam ñoo ngi jàmmarloo dëgg nag ak français yi journal bi nee na nag waa Mali wax nañu leer militaire français yi ngir nag ñu bañ a nag nekk fi da layaam layaamee nañu jël seeni bagaas maanaam génn Mali ci ni mu gën a gaawee yéen a kaay gi nag fësal a